ñun jaaxle boobu tax nu ñëw jaaxle bi tax nu ñëw mooy lan dañuy di poser question yi ndax ñun si dëkk bi lañ bokk wala bokk nu si ndax si réew lañ bokk wala bokk nu si wala wala am nday la wala ku mu amul nday la ma wala ku am nday wala ku mu amul nday ñun photographe ba événement bi commencé ba léegi ñun ñoo gën a ñun la njëkk dal ñun la gën a ndax photog wax photographe wax ñu liggéey ba amul dara état bi dégagé fonds boo xam ne dafa ni résil fonds de résilience 30 milliards pour les artisans ñu bind loolu ay këyit ñëpp bind remplir ñëpp bind ba tey gisuñu dara loolu nuy laaj nag xaalis boobu fan la jaar ak foofu mu dugg boobu mooy suñu premier problème moo tax ñu ñu ndax dana am kumba ayam nday la wala kumba am kumba amul nday la beneen bi stop mooy léegi ñoo ngi préparé nii dañuy waat euh, tëjaat ak euh, tëjaat euh, nit ñi kenn du génn su fekkee passé am na xew yoo xam ni dañ ko tëj feew yoo xam ne dañ leen dañ leen arrêté 30 décembre 24 décembre Fatick dafa daan liggéey xaalis bare 24 décembre 30 ba léegi ñuy wax nii gis nañ transport bi ba léegi na meloon ñoo koy continuer marché yi mi ngi dem école yi mi ngi dem yeneen yi mi ngi dem ba mu des ñun ñuy laajte loolu lu ko waral. état bi ni mu jàppale ñeneen ñëpp am nañu bare ñu mu jox ñu bare da ngay dégg ñu leen jox nan nu ba si inondation bi jox nañ leen ñun ba kee kenn joxuñu te ñun ñu ne ay borom kër yoo xam ne dañu yor suñu ay njaboot école bu ibi ñu war a fay frais frais frais description war a jënd fourniture war a jënd suñu ay doom ay yëre amuñu ko facture courant yi ñuy wax studio yi dañuy wax ni dañuy wax ni studio yi euh, usage professionnel la kenn ñoom dañuy ñëw dañuy fay par la force am ñoo xam ne na seen studio am na yoo xam ne tëj nañu mënatuñu fay courant mënatuñu fay location ndax ñu si loolu la ñuy dund état na fàttaliku ni kat ñun ay photographe ay botom la si leen bokk lan moo tax ñun ba léegi gisuñu dara loolu moo moom mooy suñu jooy